Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital Dalal Jam. directeur mën nga ñëwaat ci solob ndaje bi. waaw en fait euh, dañ fi daje tey euh, pour benn activité boo xam ne euh, association liggéeykat yi nekk ci biir hôpital bi ñoo l'association Bobou, association Bobu, dafa bëgg a ci wetu direction bi pour xol aussi. liy jëmale hôpital bi kanam première activité bii nga xam ne nag ñu ngi koy def te ñu kontaan si lool bëgg ci lool dafa di activité boo xam ne yàggoon nañ ko xaar ku gis hôpital bi ak nu mu yaatoo ku gis hôpital bi tamit ak fi muy féete maanaam ci wetu géej gi nga xam ne embruns marins yi dañuy attaqué installation yi xam ne pour régle problème boobu garab moo ko mën a régler surtout filao yi tey jii nag ñu daje fi pour jëmbat garab jëmbat filao yi réglé waale problème mu embrun marin yi mais également fexe ba environnement hôpital bi tamit neex a gis parce que paj du rek docteur bi ak malade bi paj li mu wund dafa bëri bi ngay dugg hôpital déjà ki lay accueillir ci paj mi la bokk boo duggee ñi lay teertu ci paj mi la ñu bokk cadre tamit bi nga ciy fekk ci paj mi la bokk laata ngay egg ci docteur bi yoon boobu yëpp nag nga nar a jël bu sa xel dalee rek day gën a yomb ci docteur bi paj mi également gën a yomb looloo tax ñu jàpp ni au delà embrun marin yi nga xam ne ñu ngi koy xeex dañoo bëgg suñu environnement bii ñuy liggéeyee mu nekk bërëb boo xam ne ku fi dugg rek wax dëgg yàlla sa xel dina dal moo tax ñu tàmbalee ko ci reboisement bi alors liñ fi jot am nag ci wàllu garab ëpp na junniy garab également ay espèces yu bëri am na fi du mot juróom-ñaari espèces te boo leen di xool tey jii nii du association bi rek du euh, bu kat yi rek hôpital bi ñom ñofi fi ñi fi ay yu bari la école yaangi fi institut de formation yaangi fi scout yi ñu ngi fi croix rouge sénégalaise ñu ngi fi association Guédiawaye je m'engage mu ngi fi donc lolu limi woné moy mooy rek ne population bi def nañu hôpital également sen momel mais également ñun aussi ubbil nañ len vraiment suñu buntu ndax bu fekkee ne hôpital tamit liko wër mur la japp nañu ni ci ni doxé ci xel yi amul dara lu ko wara takalé population bi donc lolo tax ñu yaatal leen ci biir hôpital bi xamné mbir mi ñu ñëpp ñoo ci am responsabilité té ku nekk li ñuy wax rek autorité yi li ñu bëgg moy administration yo xamné dañu jege population bi pour di leen mëna xamal li nga xamné mo moo leen umpo moy kumpa ci ñom mais également di leen mëna xelal ak di leen mëna jappalé également donc ñun ci loolu lañuy dox kilifa yi loolu la ñu sant moo tax ñu koy woyee donc ñu ngi remercier képp koo xam ne tey jii nii teew nga fi di leen wax ne ñu ngi continuer di tàllal suñu loxo population bi di leen wax ne également mbir mi seen yëf la mbir mi seen moomeel la am nañu wàll bu ñu fi war a mën a jouer am nañu responsabilité ci nekkinu hôpital bi donc vraiment jàpp nañ ne euh, activité yii di ñëw yëpp buñ koy def également dinañ dinañ leen tàllal suñu lox donc ñu ngi remercier particulièrement waa direction eaux et forêt yi nga xamné également non seulement taxawu nañu ñew nañu teew mais également may nañu vraiment ay plantes yu bari donc ñu ngi remercier ñep di jaajëfal ñep di sant ñep di gërëm ñep di leen jox euh, dig dajé fan yi di ñew inshallah allah asalaamaaleykum yéen ñi fi teew ñu ngi leen di jërëjëfal ci seen taxaway man la docteur Mariem Lolita Camara Tall nekk médecin fii ci hôpital bi euh, tay nak en tant que présidente association bi nga xam mo moo ëmb ñii di liggéeyee dalal jàmm yëpp euh, laay waxee donc euh, dañu dañu bugg dañu commencé suñu activité yi ci euh, journée boo xam ni tey jii ay jëmbat garab lay nekk donc comme ni ko suñu directeur bi waxee hôpital bi dañ ko bëgg muy doxee doxin boo xam ni ku fi ñëw di nga ci gis sa bopp te loolu nekkul kese ci faj bi nga ko mën a amee commencé na si bunt bi niñ lay gàttandoo ba li ngay boo duggee si hôpital bi environnement bi nga fiy fekk mën a dalal sa xel laataa ngay egg si docteur yi donc loolu moo tax suñu amical bi nga xam ni weer kese la amagum ñu commencé par rendre notre environnement plus accueillant maanaam ku fi dugg rek sa xel mën a dal voilà donc tey nag boo seetee nekkuñu fi ñun kese nekkul waa amical bi wala waa hôpital bi rek a fi nekk ñu ngi fi ak suñu ay dëkkandoo ay école de formation scout yeeg yeneen mouvement yu nekk géejawaay donc tey ji daal kontaan rek la ñu mun a def si bés bi ni muy doxee nii di leen jëfal bu baax ci seen taxawaay voilà. sa biir wax sànq ñu dégg nga ne da ngeen a commencé ci activité reboisement donc est-ce que mën nañ yaakaar tam am yenn activités yi nga xam ne mu ngeen prévoir à l'avenir. Ah, bien sûr am nañu activité yu bëri parce que suñu euh, si ay euh, thème la ñu inscrire euh, voilà suñu suñu kii bi am nañu ay activité de don de sang am nañu ay randonnée pédestre yu ñu bëgg def ba paré hôpital bi ay set setal ak muy bir hôpital bi ci biti yëpp li tay li njëkk la rek ñun dem nañu mbëbët nañu sax tay ji parce que hôpital kuko gis xamni keuru këru yërmande la mbëbët nañu sax ñun amical bi ba waaye waaye ku képp ku soxla dimbal boo ñëwee ci si wàllum faj bi ñu xool naka lañ la mun a gunge ba amoindrir la oyofal la faju bi yooyu yëpp yoo xam ni euh, yu ñu yu ñuy programme la te incha allah dinañ ci dellu seeg yéen ci mu gën a yaatoo